أمتي خبايا جليلا إن الذين بايعوا رسولا بخدمتي خبايا جليلا إن الذين بايعوا رسولا بخدمتي خبايا إله laasa Abdullahi xaadimu rasool dunyaa wa uxraa xidmatan wa xay rasool laasa Abdullahi xaadimu rasool dunyaa wa uxraa xidmatan wa xay rasool jamaatal yi maalam yakun wala yakun لممكنين يا من لو كن فيكون جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكنين يا من لو كن فيكون ملكتني أنت jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci 24actu point com ñoo ngi fii ci tool yi Xelkom Diaga di toolu Serigne Saliou Mbacké euh, tool yi nga xam si ne daan na ko woote am noon noonu nag Serigne Saliou Mbacké euh, Serigne Cheikh Saliou Mbacké mi nga xam si ne moo fi toog toogaayub Serigne Saliou di continuer liggéey boobu nga xam si ne moom la fi waajuram yi di woote di ko woote euh, chaque année tey ji ñu daal di woote nag ngóom mu am solo moo xamee ne taalibe yëpp daan nañ ci wuy si waaye Serigne Saliou Thioune nangu ndigal moom it xam ngeen ne ndigal jëfe rek lañ ca daal di xam ba tax na andi naa koy taalibeem Euh, daal di ñëw fii ci xel Xelkom jaaga euh, loolee tamit nag bu ngeen ci bëggee xam dara da ngeen cee ànd ak équipe bu 24actu point com dinañ leen toppal liggéey bi xool ba nit ñi naka lañ ci daal di sooboo ak ban pastef lañ ci daal di war lépp bu ngeen ci bëggee xam dara da ngeen topp ci 24actu point com a ca topp waaw ah, Badou Diallo Touba waaw sant Serigne Saliou rek d'abord parce que liggéey bi moom ku nekk xam na ne ñun ñoo ngi ciy def lu ñu man ñun Serigne Saliou daf ñëw jaral parce que ñun ndaw ñi mën naa ne moom lañ ñu génération te moom lañ ci xam ba tax na maanaam liggéey bi sax maanaam niñ ko niñ ko jëlee woon demeewul noonu parce que barke Serigne Saliou man euh, depuis trois jours maa ngi fi mais wallaahi naa si ñi fanaan si tey ji fekk ñu fi liggéey ñi fi fanaan si tey fekk fi liggéey mu mel ne Serigne Saliou chaque jour day nekk ci xolu doomu aadama yi am lu mu ciy def ñu leen ñu ñu koy sant bu baax di ko ñaan suñu borom mu doolu ko yërmande mais aussi ñuy ñaan ñi fi ñëw ñëpp. seen tànk ñëw ak seen tànk dellu yëpp mu nekk yiw barke Seydina Muhammad en tout cas daal lenn lenn moom suñu xool sedd na sedd lool lool lool suñu teewaay fii ci xel Xelkom tey xool bu sedd la ak ak ak di yokk Serigne Saliou ay ñaan waaw en tout cas loolu daal xam naa ko ci euh, man nag maa ngi jóge tuuba da nekk Darou Khoudoss man fii laa daan jàngee ba ba ba bàyyi mais nag liggéey bi bu bu bis bu ñu ko wootee bu ma ñëwee damay ànd ak nit ñi di liggéey. parce que damay damay fàttali lu yàgg a yàgg may fàttali ko Serigne Saliou maanaam nekk gi ñu nekkoon ak moom parce que Serigne Saliou day kenn barke Seydina Mohamed mën naa ne sax su ma dee wax ci moom sama xol dafay tooy. la. waaw ah, waaw sant yàlla bu baax di julli ci bu baax a baax tey sant Serigne Touba bu baax di ñaanal xalifatul am Cheikh Mountakha ah, suñu borom guddal aw fanam loolu te yàggal ko ah, di santaat bu baax a baax a baax a baax ci bis bi nga xam ne. yàlla defal nañ ci tawfeex ba nu fekk ko ndax euh, sant rek la ñuy def baax ndax barab bi daa nekk barab boo xam ne barabu euh, jaamakatu yàlla la ndax ki fi nekkoon di Serigne Saliou euh, daa nekkoon koo xam ne daa kenn loon suñu borom ba lii rek moo ko waral ndax loolu suñ mun taxaa naan yàlla am na ful la ndax boo ko nekkale rek mu nekkal la te nekkal suñu borom rek moom solo ndax saa soo ko nekkalee rek yaakaar naa ne di nga raw sey morom raw say maas Ah, loolu daal la lay xam ne am nañ ko yëg-yëg bu baax a baax ci bisu tey bi ah, Touba lañ jógee waaw Touba lañ jógee ñu ngi dal eh, dal bi di eh, sëñ Mourtala mo sëriñ Mamor Pakala di xale bi sëñ Mamor Pakala nekkoon fii ci daara ji nga xam ne sëñ Saliou moo ko yar ba boo ko fekkee ci baatu sax da ngay jàpp ne ab taalibe la te eh, loolu rek moo di pëseef ndax adduna moom amuñu fi dara lu liggéeyal sëriñ bi ndax lu fi waay am rek wala mu raw fi ci liggéey suñ tubaab la la ko jëlee. Ah, ah, démb ci ay boori ah, midi lañ fiy door egsi lañ fi door egsi bi ñu ñëwee bi ñu anañee rek lañ dugg ci tool yi wax dëgg yàlla xam ne yu bëree bëri jot nañ ko fi ngóob fekk nañ ko fi. ba jàll fii ci kaw a sax sori na lool ay taakusaan ñu ñëw waaye tamit sant nañ baax te yëg nañ bu baax a baax a baax li xam ne moo ñu fi indi woon. ah Mbacke waaw liggéey bi de defuñu lu dul di ko rafetlu bu baax a baax ginnaaw bi ñu suñu boroom mayee fekk akuk tal ba ñu woote xel koom ñu ñëw teew ci te chaque année ñu fi daan teew ndax liggéey suñu saali moom daa doon liggéey boo xam ne ñàkk cee teew it wu óoru foo ko déggee boo nekkoon fii ba Italie wala nga ne États-Unis sax jéem a la dagg biyee nga jéem a ñëw fekk ko ndax lam ca waxoon muy waxam juróoy jooju noonu ka ca demut laa laa xamut ci moom dara rawatina kon ñun ñi nga xam ne teew nañ ci war na nañu góorgóorlu bu baax a baax buñ ci ñëwee buñ fi ñëwee ñu xam li ñu fi indi muy liggéey suñu saali ñu góorgóorlu ci bu baax a baax gën a farluwaat liggéey bi nag suñu seex ba mu ko waxee dane woon gaaw bi mooy départ bi waaye xër gu mori di xër moo taxoon daanaka barki dem ba léegi mbooloo mi ñoo ngi fi ba tax tey ji ci gaaw bi mën na ne liggéey bi mën na ne mat na waaw ñun ñu ngi jóge Touba Touba lañ jóge waaw waaw ñëwoon ñu ngi ñëwoon fii barki démb ndax sëñ bi sa gaaw la waxoon waaye xeer gu ñu xeer moo tax ak bëgg liggéey bi moo tax ñu woon fii barki démb ba léegi waaw dañoo jiitu si woon liggéey bi ñor gum ñu ñor ndax xam nañ pëstéef bi murid yi am boo ne damay bàyyi ba gaaw boo ñëwee du fekk dara loolu moom ñëpp ko xam ndax ku yàgg ñëw xel kom yàgg cee teew at yi weesu yëpp xam nga liggéey bi ni muy doxee bu ñu waxee at bis ba nga xam ne moom lañ ne na ko mbooloo mi demit bis boobu boo bàyyee ba mu jot nga bëgg a demit boobaa doo fekk ab liggéey. Uh, mhm. ah, wax dëgg yàlla liggéey bi neex na wax dëgg yàlla ndax bi ñëwee ba léegi ñun moom liñ fi dañoo li ñu fi jot a fekk bariwul Baay Faal yi ay jàmbaar lañ ndax wax dëgg yàlla avant ñu ñëw fekk nañ daanaka lu bari dem na waaw mais dañoo ñëwoon rek pour barkeelu ndax fii moom ku fi xasa ñëw moom. ñun ñëw nañ fi tey suba tey lañ fi ñëw waaw ñu fekk nañ liggéey bi cate wax dëgg yàlla mais dañoo ñëw pour barkeelu si waaw fii moom ñàkk fee teew moom wóorul mais boo fi xasee teew loo fi mos baax na waaw ñun moom wax dëgg yàlla si bunt ba lañ tàmbalee ñun ñi wax liggéey bi jeex na mais boobu taxul ñu gëm ko ndax ñun ay nit di wax di ñu koy gëm indi wuñu fii borom bis bee ñu fi indi muy borom jamono moo tax ñu ñëw fi bàyyi suñu yëpp tax ñu ñëw fii li tax ñu ñëw fii nag moom moo ñu ñor waaye liggéey bi jeex na ñoruñu moo tax bi ñu ñëwee liñ fi jot a fekk ak suñu néew barkeelu nañ ci waaw ñun ñu ngi dal ci taliba fora euh, fële euh, waaw daaru tasir Touba Xelkom waaw fa lañ dal waaw doxee foofu ba fii ju yëgunu oto danoo dox ak daw di ñëw ba fii ngir borom jëm ngir borom jamono kase moo nu ñor keneen ñoruñu géejawaay ah liggéey moom lépp jaar na yoon ndax lii lépp sëriñ Saliou moo ko waral waaw ndax ñun depuis jeudi ba tey ñu ngi fi di liggéey te am ñu fi benn difficulté daal waaw ñun de fee forage ba lañ dal waaw fa lañ dal waaw dañu dañoo ex dañoo liggéey ba ex fii après lépp luñu liggéey ñu jël ko teg ko fii waaw am nañ fi trois jours depuis jeudi ba tey ñu ngi fi ñoo ngi si waar bi bëgg sëriñ Saaliw rek dëkk yërmande bi lépp am na fi manqué wul dara lekk yaa ngi fi naan yaa ngi fi dara manqué wu fi waaw di ñaan rek ñu koy fekk ay déwéni déwén te kenn bañ a manqué